dañu waxoon ni point de presse bi dañ ko convoqué tout simplement pour teggi teggi ay tuuma yi nga xam ni le maire de la ville Talla Sylla tegoon na ko ci gestion euh, Yankoba Diattara maanaam wax ni dafa gis ni mairie de ville gis na fi ay emploi fictif ma ni emploi fictif mooy koo xam ni dinañu ko fay xaalis te mënuñu indi la traçabilité xool fan la nekk bu fekkee emploi fictif am na te moom mu nekk maire de la ville dafay brandir les preuves rek ni liste bii ma yor nii ay emploi fictif lañ maanaam dañ doon ko ci maire ville bi te liggéeyuñ fi loolu defu ko amul donc ñu jàpp ni non seulement li mu wax du dëgg mais dañu jàpp ni c'est un discours de campagne électorale comme xam na ni dootul nekkaat maire ville bu Thiès programme yëpp mi ngi nekk ci critiquer wax lu Yankhoba Diattara defoon ma wax ni bu amoon ay compétence juróom-ñaari at yi mu def ci mairie de ville dana fexe au moins Thiès jóge ci station bu nekkoon dem feneen ndax ñëpp gis nañu ne cees commencé woon na développé di jóg depuis deux bi Idrissa nekkee maire ville nekk également premier ministre à travers les chantiers de Thiès ñu am lu bëri lu ñu defoon mais loolu yëpp depuis 2014 yàqu na depuis deux 2014 ba léegi lu ñu ñuy wax yéen seen ville bi moo gën a salte ci Thiès moo gën a salte ci dëkk euh, moo gën a salte ci Sénégal yéen également seen dëkk bi occupation anarchique bi fi nekk dafa jéggi dayoo dëkk bi la ndëm na donc moo wax ni. soxla yooyu rek doyoon na mu indi ci ay saafara benn bi mooy bi ñuy def dévolution bi Macky Sall ñëwee ne dafa bëgg commune yëpp nekk ay commune de plein exercice Thiès dañu tegoon benn commission de dévolution mu waroon a xayma ñi doon liggéey ci mairie ville bi ak li mairie ville am ci patrimoine ak xaalis bi lu mu toll pour ñu séddale ko lépp commune moo wax ni ñetti type emploi moo doon nekk ci mairie yi les permanents ñi nga xam ni dañ leen a embauché ak ñi nga xam ni ay contracteurs lañ ak ñi nga xam ni daanaka li ñuy fayeeku matul fukki junni te weer wu nekk maire bi ma na leen dindi di leen ay décisionnaire maire de ville amoon na cent vingt-trois agent maanaam ñaar fukk ak juróom ak ñett biñ leen séddalee critère de dévolution bi ñu jëloon mooy agent bu nekk fa nga dëkk ci Thiès commune ba mu tollool nañu la affecté foofu mairie de ville conservé les cadres donc mairie ville amoon 51 agent Thiès est 24 nord 22 vingt 26. bi ci des xaalis bi ñu ne. Euh, Diatara bàyyi woon na en caisse deux cent soixante quatre millions neuf cent soixante dix sept mille sept cent quarante trois francs dama xamul nu ñu koy tekkee ci wolof mais loolu également bàyyi woon na ay dépenses engagées non mandatées maanaam ay ñoo xam ne liggéeyoon nañu mairie bi ñu war leen a fay mais li ñu leen waroon fay mi ngi toll si cent quarante huit millions sept cent vingt trois mille six cent soixante dix huit francs c'est-à-dire même bu fekkoon fay nañu ñooñu mairie de ville dana defee en caisse cent seize millions deux cent cinquante quatre mille zéro six francs yu ñu waroon séddale commune Thiès Est commune Thiès Nord ak commune Thiès Ouest comme ni ñuy séddalee personnel xaalis boobu kenn gisu ko ba léegi war a indi ci leeral ci loolu. moo wax ni même bu fekkoon emploi fictif am na dafa war a génn liste bi rek ne ñii ñoo fii liggéeyee. doon ko xaalis te man bu ma dikkee gisuma leen beneen bi dañu ne dépense bu mairie bi di def même bu fekkee ni un franc la da nga koy fay nit da nga ko war a prévoir ci budget bi donc agent yi mu recruté woon seen salaire mu ngi woon ci budget bi mais ñooñu kenn fayu leen dégg naa ñeenti weer wala juróom weer bu nekk xaalis boobu anam donc li ñu wax lépp c'est un discours politique comme amuñu programme te dëkk bi yàqu na ñun suñu yitte yëpp mooy fexe ba andil wàccees Thiès boo xam ni li leen naqari woon yëpp da leen ko mën a fajal en l'occurrence le candidat Yankhoba Diattara qui vous présentera une vision autour de dix engagements yoo xam ni dana jël préoccupation waa Thiès yëpp pour buñ ko mettre en œuvre dëkk bi mën a jëm ci kanam loolu lañu waxoon tey danañ leen euh, dajale andi ko comme ay tontu ci ci lu jëm ci li mu waxoon bi ci des mooy li may wax ni euh, dans le cadre du du PACASEN état bi dafa euh, mettre en place benn programme tudde ko donc pakasen programme boo xam ne dafay jublu si jàppale communes yi pour ñu mën a tabax maanaam defar ay école en tout cas defar lu ñu mën a defar mais bokkoon na ci conditions yi pour ñu mën laa jox nga voté sa budget jébbal ko représentant état bi avant le 31 décembre commune Thiès Est Thiès Nord ak Thiès Ouest yëpp ñoo ngi ci wàccaay yooyu moom gisuñu ko ma wax ni bu dee li mu wax ni yéene na waa Thiès bëgg na waa Thiès dëgg la dana dellusi jublu ci wàccaay yooyu pour ñu mën a voter budget bi pour au moins waa Thiès bañ a perte deux cent millions wala trois cent millions yi ñu war a gagné laa ci Pakasen bi